asalaamaaleykum Salimata Ndiaye responsable politique Benno Bokk Yaakaar présidente mouvement ànd soutien ànd jàppale le président Macky Sall xaar président Macky Sall di ko teetu teetu bi gën a nag yéeg bi gën a kawe di ko wax soyez le bienvenu monsieur le président Macky Sall macha allah ñii ñëpp